décision au conseil constitutionnel. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, may ñaan sénégalais yi nag ñu may leen cër. ñu may leen respect parce que li ñu def nii vraiment chapeau. Mm-hmm. Euh, yëkkati nañu image yu Sénégal ndax adduna si yëpp mu ngi doon wax ne Sénégal vraiment nekkatul un pays démocratique. wane nañu ne c'est un état de droit. le conseil constitutionnel a dit le droit. léegi nag ñii di wax ne. bàyyi na porox ndoll ci wàllu délai yooyu. kooku ay détail la. conseil bi effectivement li mu def nii c'est sage. maanaam hmm. imposé wul date parce que xam na ne ñaari option am na soit ñu respecter date bi pour que avant le 30 maanaam trente jours avant euh, la fin du mandat ñu mun a tenir euh, élection bi kooku article l moo koy wax ci euh, alinéa. 1 bi. Euh, mu ne diggante cinq jours ak 30 jours loolu mun na am parce que ba léegi ñu ngi ci délai boobu. moo tax Bougane mun a wax sax ne effectivement nañu respecter euh, échéance boobu waaye nag beneen option mun na am itam. te option boobu protocole CEDEAO protocole additionnel CEDEAO wax na ko nee na euh, bu ñu demee ba ca élection bi bugg a jot. ñu gis ne peut-être délai bi ñu ngi ko war nañ ko mën a yokk tuuti pour may temps un peu plus de temps parce que il faut pas oublier que am na temps boo xam ne euh, mooy temps wu euh, candidat yi pour def campagne bi waaye am na temps aussi bi nga xam ne temps matériel bi nga xam ne ci la ñuy installer tout le dispositif pour que élection bi mën a jaar yoon. Mm-hmm. Euh, ci wàllu représentativité wu euh, nit ñi ci wàllu contrôle bi d'une manière générale ci wàllu même euh, matériel yi nga xam ne moom moo war a teew ci ci bureau de vote yooyu yëpp. doon na peut-être loo xam ne dina laaj un certain temps mm-hmm. en tout cas protocole CEDEAO nee na bu candidat yi nga xam ne ñoom tàbb nañ leen ba pare ñu nekk candidat ñooñu bu ñu dajee bu ñu defee consensus rek mun nañu jàpp beneen date puus ko tuuti kon comment consensus lay les deux hmm. te loolu dina méngoo suñu constitution ak protocole <coughs> euh, de la CEDEAO moo tax ñaari option yooyu la la ñu bàyyi ouvert loolu nekk na loo xam ne coobare askan bi la surtout coobare ñi nga xam ne ñooy candidats yi ayant droit yi hmm.